li ñu président de la république tegtal tegtal ko mboolem sénégalais yi gannaaw ba jàngoro bi duggee suñu dëkk du suñu réew du moins nit ñi doon laam-laamee di koy dégg fu ne mu dugg Afrique ñu ne déet mu dugg Sénégal ñu xam ne léegi kon mi ngi fi ci la commencé di wax nee naa jéegooy président nit ñi duñ ci def attention fu mu génnee wala fu mu waxee rek lu rëy a tax te nit ñi buñ koy buñ ci bàyyee xel konoon heure bii dépassé woon nañ étape bi couvre état du d'urgence dafa ko ci coobare boppam dafa ko pour tere nit ñi dem mais dañ ne jàngoro bi techniciens yi ñooy wax de jàngoro bi du dox amul tànk nit rek a ko mën a yóbbu kon nañ wàññi dem bi suñ ko mënoon dakkal sax mooy gën boo ko mënul dakkal booy dox nga doxul dox. te ñi ngi sant yàlla bu baax que suñ arrondissement Mewane mi nga xam ne ñeenti communes yi ñoo ko constitué di Mboro Darou Khoudoss Taïba Ndiaye Mewane ba bésu tey ñi ngi sant yàlla alhamdulilah rabbi alamin amuñ fi benn cas buñ xam ne mun nañ cee teg loxo ne lii am na fi ci feebar bi ma dolli ci sax ne danaa génn sax arrondissement bi wax ci département Tivaouane parce que ci renseignement yi ñu am man ak samay kilifa benn cas bañ fi doon wax kooku techniciens yi ñoo ne sax daf leen a jaaxal effectivement testé nañ ko mu positif looloo tax ñu yenn yóbbu jam ñaaju mais bañ eggee benn fan ñaari fan bañ ko testé waatee dafa négatif gisuñu jàngoro bi ci moom ñu libéré ko libéré booboo waral mu del siwaat teewoon jël ay bagages am ba autorité defal ko këyit mu jël oto ñibbi fa dëkk waaye nag comme dañuy fàggandeku on est dans la prévention ci la suñuy kilif administratif comme sanitaire nekk comme ci dëkk ba mu nekkoon di Tiwaawoon lekk na wala jot daan na lekk ci restaurant te restaurant ba juróom benn jigéen na nga fa ñoo xam ne ñoo doon servir pour ñu mën a jël suñuy disposition nañ leen jël ñu ut fu ñu leen teg am naa néew na ci waa Mboro ñu xam ne seen dëkk bii lañ jëloon ñun pour di fi mettre en quarantaine parce que nag amul hôtel feneen wala ay résidence ci bésu tey bii fi ma toll kayit yi ci suma oto 39 fanweer ak juróom-ñeenti nit indi nañ leen ci commune Mboro doon denc leen fi denc néggandiku la kese boo xam ne suba gu jot waa doctor ñëw jël seen tension seetal leen seen yaram ñu yóbbu. ñu mujj ñi nag daa fekk yëf yi gën a tar kuñ ci jàpp tey jii wala ku ne ñu kii dem na wala jógee na ci dëkk bu ko am rek immédiatement docteur day def prélèvement ñu yónnee donc boo demee tëdd ca suba ga sa résultat dana ñëw mais même buñ ne négatif du la traité tëdd fukki fan ak ñeent fi may wax ak yéen nii soxna su jógee Pambal ànd ak ñaari doomam moo nekk à ak ñaar ñi nga xam ne ni ñooy ñibbi tey ji bu soobee yàlla bu ma fi jógee man ak infirmier bi nañ dem léegi libéré ko te kenn ki di suma xarit sax finalement di xaritu Ablaye xaritu Ablaye la moom parce que mi ngi ñuy xaar bu baax a baax nee na ma waxal Ablaye waa kër ga na nañoo sonn ma ne ko yàlla baax na